benn kale bu jigéen tuug. Hmm? fii fii si ginnaaw. Eh. mu ne danga koo ëmbal. Eh, sax mënoo kame loolu. <laughs> mooy sa liggéey. oh, oh kon noonu bii noonu suusul de. ah nu mu suusul de. ah oh bi suusul. jigéen ku mu jiin ëmb yawa wala def nga ca musoo taa def. ah. bii noonu c'est contraire. lu tax oh oh. man si fekkee man ler na ma nga ma umbu ma nangu fekk na dem naa ven ven vingt et un vingt deux fois. waaw kono bi hakkunde nge taw dalangu ko 17 fois tu man a mu amu ma umbu na. Diset. kono nong, waaw si kale mi mu hmm. si mu munee wak hmm. si mu mama ma ma hoolu ko mu ne ma babeng, si wokku dool tun nekku suma Sanir. moom de am na gan mëgëy